أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غتر- غفر له ما تقدم من ذنبه إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi dinañu jël tey ñetti aaya aaya 35 36 37 ñetti aaya yi mbokki jullit yi liñ ciy jëlee comme njàng li nu sunu borom di jàngal ci ñetti aaya yi juróomi mbir la bi ci njëkk mooy wujubu taqwallahi azza wa jal dafa war ti nun nu ragal yàlla loolu warugar la wareef la léeg-léeg nu fàttali fii baat yi nga xam ne boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fayal ñoom ñoo ñuy wax li war ci ñun ak li nga xam ne warut li nu sopp li nu bëgg li nu sib li araam jaamu xeetu jaamu yàlla yépp ci yii la tënku léeg-léeg ñu ne la dafa war léeg-léeg nu ne la dañ ko sopp léeg-léeg ñu ne la dañ ko sib léeg-léeg ñu ne la dañ ko bëgg léeg-léeg ñu ne la dafa araam kon baat bii di baatu wujub mooy war suñ nee war nag mooy loo xam ne du la wàcc su la neexee da nga ko war a def su la naqaree da nga ko war a def waaw mooy wujub kon lan moo war ci ñun mu ne taqawallah ragal yàlla ndekk mbokk yi ragal yàlla dafa war ci ñun du lu nu sopp du lu nu bëgg déedéet fal force la moo war ab jullit ragal yàlla waaye doo yem ci loolu wa talabil qurbati ilayhi ngay sàkku ji ko jéem a jege di jege yàlla yàlla dafa bëgg nu ragal ko jege ko ñetteel bi mooy yàlla dafa bëgg ñuy jihaad ci yoonam bi loolu mooy lu njëkk tomb bu njëkk bi nga xam ne dinañ ko jëlee ci dars bi mooy ñett mbir la yàlla bëgg foofu ci ñun mooy ragal ko fu nu toll ñu jéem koo jege waaye di xeex ci yoonam wi lu samp diineem diineem ji luy aar diineem ji lu tax diineem ji yonentam bi téereem bi bu ko kenn laal loolu mooy jihaad fi sabilillah kon ñett yooyu ñu wax léegi ñun ñëpp nañu jàpp ne wujub dafa war su nee war nag mooy farata la ci ñun ñu ragal yàlla loolu tax bi yàlla bëggee nu ragal ko mbooleem lu nu yóbbu ci ragal yàlla ci xeetu jaamu yàlla yàlla sant nu ko muy lu war julli koor azaka aji màkk ak xeet ya ca aju ci jaamu yàlla yoo xam ne yàllaa ko santaane nga xam ne ku ko def rek lim lay jural mooy nga ragal ko loolu tax yàlla waral ko ci ñun sunu kaw ak tamit yàlla sàkku ci ñun ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla yooyu ñuy def jaamu yàlla yooyu fu mu nuy yóbbu mooy ñu jege ko moom borom wallahi ci dund àdduna bii nuy dund tey nit ñu baree bari danañ def dara ndax jege seeni kilifa ñu bari ci ñun bu ñu yëgee ne nàngam bi kilifa gi daf ko bëgg walla mbir mi ku ko def jege kilifa gi da ngay gis ñëpp di ko def waaw léeg nga jékki-jékki rek benn waaye bu soj bu sos benn mouvement citoyen waaw dugg ci àll bi commencé naan président président président man président laay liggéeyal président laay liggéeyal waa jooju deful dara lawul pour la pour jege président kese la léegi nag benn waaye dugg ci àll bi di laaj ay sarax di laaj ay ndimbal ca nañ koy tuddee ca nan koy tuddee ca nan koy waxee nangam nangam nangam nangam nangam nangam dem ci kilifa gi ne ko am dara bugg a jege kilifa gi rek léeg-léeg nga gis benn xuusmaa njàpp ci biir société bëgg a jege kilifa gi rek mooy tax lu fi waay def rek wala wax ko fi rek wala ñiy taardeek wala nangam ak nangam mu jege ko rek di wax du lenn lu dul bugg ko jege yi ñu ñett yi ñett ñu wax yépp da ngay gis ci dëkk bi ay nit di ko def pour jege kilifa gi waa mbokk yi kilifa gu nu mën a jege ak jege yàlla ban moo ëpp importance jege yàlla waaye jege yàlla boobu fan lañ koy amee ci jaamu ko rek waaw du doole du kàttan duy pexe duy xalaat duy mën-mën ku bëgg a jege yàlla daal da nga koy jaamu wala yazaalu abdi yataqarrabu bi bin nawaafil doomu aadama du dañ di jege yàlla ci ay naafila ci ay naafila ci ay naafila ba jege yàlla su waxatee lu neex yàlla la su joxoñatee sax day neex yàlla lu mu def rek day neex yàlla waaye fan la nit di amee loolu mooy ci naafila naafila yooyu mën na nekk julli mën na nekk koor mën na nekk dem màkk mën na nekk umra mën na nekk lu mu doon ci xeetu jaamu yàlla yi allahu akbar foo fekk waa ji mi ngi jéem di jaa jege yàlla fu njàppam tojee jàppiwaat na foo ko fekk gémmiñam soccoo ngi fa lu tax pour rek jege yàlla foo ko fekk mi ngi saraxe foo ko fekk mi ngi jàng alquran foo ko fekk mi ngi naafila foo ko fekk mi ngi woor foo ko fekk ci loo xam ne daal ku ko def rek yàlla fay la waa ji ci loolu lay nekk kon ci xeet yooyu la ñuy jéem pour jege sunu boroom waaw dañuy jël tey aaya boo xam ne dafa bokk ci aaya yu yëngal dëkk bi ci aaya yi ñuy jël tey sunu ñetti aaya yi daf ci am benn aaya boo xam ne dafa bokk ci aaya yi yëngal dëkk bi waaw wala mu yëngal àddina mu nga ñaareel ci li ñuy jële ci ñetti aay yi nekk suñu kanam mooy masruiyati tawassulu ila allah dagan na gis nga baat yooyu ñu doon wax sànq benn baat bi ñëwati na mooy masruiya yoonal nan danoo yoonal kan mooy yoonal man wala yéen wala sunuy wayjur yu góor ak jigéen wala sunuy kilifa déedéet wala suñuy borom xam-xam déedéet ki yoonal mooy yàlla ci sharia am lay yoonale yónni yonent bi ne ko leeralal li ma yoonal yàlla yoonal na ci ñun tawassulu ila allah ñu jokku jëm ci yàlla pour jege ko waaye ñu ut ay moyens yoo xam ne daf nu yóbbu ci yàlla mooy atawassul ay moyen yu nuy yóbbu ci yàlla danoo war a tukki foog ñu am ay moyen yu ñu tukkee moyen yi tukki yan ak yàlla bokk na ci ah dégguma passeport bokk na ci ah billet bokk na ci assurance bokk na ci argent de poste bokk na ci réservation bokk na ci oto bokk na ci avion bokk na ci bateau bokk na ci saret bokk na ci fas fi nga bëgg a dem rek foog nga am moyen bu la ko yóbbu benn waaye ngi ni boo bëgg a dem Dakar am na paas est-ce que day dem ah lu tax du dem amul oto gis nga kon moyens yi dañu bëri moyens yooyu nag yàlla yàlla bëgg ñu dajale ko lépp pour mu yóbbu nu waaye ci moyen boobu nu war a wax tey nga xam ne dafa bokk ci ay yëngal dëkk bi wala àddina bi moyen boobu nag tey nit ñi fa la ñu am problème yan moyen la ñu war a utiliser ba dem ci yàlla am na ñu ko firi firi bu baax am na ñu ko déggin déggin boo xam ne moo leen yóbbu safara parce que nin ko waxee ñoom ak ni ko saxaaba yi dun dunde ak ni ko yonent bi waxee ça fait deux ba tax ay nit topp leen ca ñoom seen déggin googu ñoom ak ñooñu ñëpp ñu bokk alko boroom xam-xam yi dañuy wax ne iza zalla al aalimu zalla al awaalimu su boroom xam-xam tarxiisee rek yóbbaale ñu baree bari boroom xam-xam bu tarxiisee lan mooy bu tarxiisee waxuma mu tarxiis daanu de bu tarxiisee tag ci karoy daanu day jugaat soldat lam dem waxuma foofu bu tarxiisee mooy lan bu jàddee yoon wi boroom xam-xam boo duggee këram gis jabaram di xeesal di tagal di paccal yow mii taalibe bi boo demee loyo dara nekk am na benn waay seetaan naa ko mu ne journaliste moo ko doon laaj ne ko yow kilifa diine nga mu ne waaw mu ne ko lu tax doo wax sa jabar yi ñu muuru mu ne ko duma leen ko wax parce que man sama kilifa ba may dem ci moom samay soxna laa àndal wa- mu gis leen nii waxu ci dara kon su fekkoon ne nii bon na mu wax ci kon nii dara nekku ci gis nga kon kilifa yi danger bi ñuy def ah samay soxna ba may ziyaare ji sama sëriñ ñoom laa àndal toog ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi gis leen nii ñu mel waxu ci dërëm su doon nii daa bon kon sëriñ bi wax ci kon sëriñ yi war nañoo wax ndax taalibe yi li ñu nekk ci lu bon dafa bari te taalibe ak sëriñ gars yi dañ naan sëriñ tuddul sëriñ baatu sëriñ tuddul sëriñ de mooy kuy saye njariñ dafa gudd ñu ne sëriñ ah kuy saye njariñ lan mooy kuy saye njariñ kuy jàngalaate luy jëriñ saye njariñ lay def kii day saye njëriñ maa ngi dem ca waajay saye njëriñ baat bi xam nga nit ñi dañoo bëgg lu gàtt ñu ne sëriñ waaye léegi nag nekkatuñu ñuy saye njëriñ waaye ay këriñ lañ këriñ waaw këriñ këriñ moom xam ngeen ne na muy def ba nekk këriñ kenn bëggu ko li ëpp ci ñoom loolu la lu tax déggal waa ji li mu wax kon boroom xam-xam dafa war a wax moo xam nit ñi déggal nañ la moo xam nit ñu dégg la déggaluñ la yow sa responsabilité wàcc ñoo na ci benn asar boroom xam-xam yi dàq nañ ko yor xadis ñu ne du xadis waaye wax la ju bari ci téere yi wax la yu nekk ci téere yu bare bare bare bare bari mooy saakitu anil xaq seytaanun agras ku gis dëgg noppi ñu ne seytaane bu muuma nga nga gis dëgg yàlla gi nga noppi bañ a wax ñu ne yow seytaane bu muuma nga kon kilifa diine yi boroom xam-xam yi imaam yi ustaaz yi képp ku ñuy wax di la koo xam ne buñ la gisee nit ñi seen xel ci diine lay dem dañ lay laaj wala ngay jàngale soo gisee lu jaadu da ngaa war a wax moo tax même da nga war a contrôler ni ngay jullee parce que nit ñi dañ lay xool ñu ne boo duggee ci jàkka ji ne allahu akbar gaa yi di xool kii nan la taxawee kii nu muy rukoowee nan la sujoodee ah noo def rek gaa yaa ngi xool da ngay dégg benn waaye mu ne man de jànguma waaye yàgg naa ànd ak sëriñ bi dégg nga kon bu yàggee yàgg ànd ak sëriñ bi kon sëriñ bi war nay def loo xam ne waa ji bu ko ciy roy mu roy sunna waaw sunu benn dëkk bu ñu sunu dëkk dendal musuma faa dem nag waaye magi dëkk ba ñoo ko doon wax ba ma jot ci sëriñi dëkk ba dafa màgget daanaka léegi da commencé naax suy julli nii lay def nii ci sàppe bi bu taxawee nii lay def comme bu ilimaan ne wala dalli noonu nga gis yenn paa yi di def naan amiin ah xam nga loolu da nga koy gis imam ne wala dalli nga gis gars yi dem gauche à droite amiin ne nii nag jaayu léegi sëriñ bi noonu lay def sëriñu dëkk boobu noonu la noonu la doon def génn naa àdduna al na ko yàlla jéggal te yërëm ko noonu la daan def paa yi jàkk ji commencé di ko def bu ñu taxee ci sàppe bi rek naan nii paa boo ne lii nag mu ne sëñ ceer na ko noonu wadat ceer na ko nii wadat ceerno ko ni walla tan ma waɗe ceerno joni mawni sallani ah benn ndeysaan kenn dañ leen sëñ bi bu leen ko topp parce que dafa feebar imaginel nit ñi kon dañuy topp nit noonu la saxaaba yi doon toppee yonent bi yonent bi sëgg na ci ruko daal di simmi ay dàllam bi mu sëlmalee gis saxaaba yépp simmi yonent bi ne lu xew gars yi ne ko yaa simmi ñu simmi tooguñu fi sax di xaar daan lu taxaw da ngaa simmi ñu simmi mu ne man sama taa sama dàll yi jibril moo ñëw ne ma dafa am sobe moo tax ma simmi ko ah gars yi ne ko ñun daal suñu yoon nekk yaa simmi ñu simmi waaw kon noonu la nit ñi di royee borom xam-xam noonu la nit ñi di toppee ab yonent kon borom xam-xam bi na fexe suy def mu def lu yàlla bëgg lu yonent bi bëgg buy tere aussi mu tere lu yàlla terelu waaw waaye tey gis nga gars yi dañoo noppi sëriñ si dañoo noppi kilifa yi dañoo noppi borom xam-xam yi dañoo noppi nit ñi di nit ñi di def lu leen neex koo wax mu ne la lii bu doon araam na diw wax ma ko sama sëriñ wax ma ko bis bu nekk ma dem ziara ji ko nii laay def musuma koo wax ndeysaan am na benn sëriñ bu doon alhaji Mansour Baro taalibe bu ko musa ziara ji takk lam ñibbi woo ak lam bi taalibe bu ko mos a ziyaare ji takk seen ñibbi woo ak seen bi parce que daf koy dagg boo sëggee ne da nga koy nuyu rek nii lay def moom ne tëppit dagg ne la góor du takk seen bu dee ab lam boo naan nii di nuyu ci lam bi lay jàpp xëcc mu dañ noonu la borom xam-xam di mel da ngay digle lu baax di tere lu bon waaye nga bàyyi nit ñi ndax bëggul poñet buñ la jox parce que waaye ah su ma ko teree dootu fi ñëwati day dem uti keneen na dem wallahi bu demee yàlla indi la ku ko gën man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla indil la ku ko gën lu ko gën waaw kon mbokk jullit yi yoonal nañ tawassul ila allah ut ay moyen yu ñu yóbbu ci suñu borom subhanahu wa taala yooyu nag bi ci bokk mooy bil imaani wa salihil amal ci gëm yàlla ak jëf yu baax nit bu buggee dem ci boromam jumtukaay bi njëkk mooy ne ànd ak ngëm soo bëggee dem ci yàlla te gëmoo doo dem moo tax jàngeen yàlla mu ne ku gëmul yàlla lu mu def duma ko nangu innama yataqabbalu llah min almuttaqin waaw qaalat al aarabu amanna yàlla ne déedéet du dëgg gëmuleen kon nit bu bëggee lu mu def yàlla nangu ko gëmal yàlla gis ngeen tey danañ gis ay yahuut ak i nasaraan ñëw ci dëkk Afrique yi ñëw ci dëkk jullit yi ci dëkk yi nga xam ne jullit dañoo sonn wala sax adduna bi dañoo sonn côté yooyu tabax ay hôpitaux defar ay forage defar ay tali ay marché ay nangam ak nangam ba pare daal di ñëw ne kat lii kado la ñun ñoo leen ko may nangam nangam ah fuuf pënd ak poussière amul tiyaaba amul tiyaaba bu fekkoon dañoo gëm yàlla yàlla day nangu loolu comme gëmuñu nag pënd ak poussière la ko yàlla di def wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur képp ku gëmu yàlla loo def yàlla pënd ak poussière la koy def pënd vurr mu daal di naaw dem pënd ak poussière kon nit ñi dañoo war a gëm yàlla jiital ngëm yàlla ci seeni jëf ku bëgg soo jëfee yàlla nangu gëmal yàlla boo gëmee yàlla ba pare tamit boo bëggee yàlla nangu say jëf jëfal jëf ju baax al amalu saalix yàlla du nangu lu dul jëf ju baax waxoon nañ leen saftir passé tafsir yi passé surut qubulul amal sart yi yàlla di nangoo jëf sart yi yàlla di nangoo jëf jëf ju baax kon soo bëggee jëf ji ngay def yàlla nangu ko gëmal waaye jëf ji ngay def na baax ñetteel mooy azamu azabi yowm alqiyama wa shiddatihi nañ jàng tey ci sunu aaya yi nekk sunu kanam rëyug mbugalu yowm alqiyama ak ay taraayam mbokk yi yowm alqiyama mbugalam foo ko nat yow doomu aadama wees na ko ci xeetu taraay mettit ah doomu aadama xelam munu ko may muy imaginer li yàlla di wax mbugal yowmal qiyaam non jamais xel bi sax bu ko bëggee imaginer day day day day alku yàlla nee na nañu ragal loolu xoolal ay aaya ci alquran yàlla mu ne ya ayuha nnaas ittaquu rabbakum inna zalzalata saata sheyun azim yàlla nee na ragal leen yëngu-yëngu yowmal qiyaama ndax rëy na trop asamaan ak su- ak suuf ban moo ëpp nit asamaan ak nit ko ëpp ah asamaan asamaan àttanul yowmal qiyaama suuf ak nit loo ëpp suuf ak nit loo ëpp suuf àttanul yowmal qiyaamati montagne yi ak nit ñi ñoo ëpp montagne yi àttanuñu yowmal qiyaama jant bi sax àttanul yowmal qiyaama weer wi àttanu ko ah doomu aadama bëgg àttan yowmal qiyaama loolu doy na waar de ah loolu yéeme na de doomu aadama bëgg ne man ñeme naa man damay riposter yowmal xiyaam dara déet mu nekk de yowmal xiyaam doomu aadama àttanul la fay xew xelam sax mënu ko nangu waaw yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadaau kullu zaati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakin azaab allah shadid yawman yajcalu wildaanu shiiba yawma naqulu li jahannama hal imtalaat wa taqulu hal min mazid yawma yafiru almaru min axi wa loolu yawmu yooyu yàlla di ñu wax jar di bàyyi xel bu baax a baax yawmal xiyaam di nga taxaw ci kanamu yàlla hmm? ñaar rek moo fay nekk nga dem aljanna wala nga dem safara ñaar rek moo fay nekk yal nañu yàlla boole ci ñi jëm aljanna mbokk yi kon ci sunu aayata yi borom bi dana nu jàngal màggaayu mbugalum yowmal qiyaam ak taraayam boo xam ne yowmal qiyaam mbugal gi du jeex mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk ci àdduna ñeenteel mooy laa fidiya yowmal qiyaama yowmal qiyaam jotu amul jotu fidiya yenn saa yi bu ñu bu nit deewee yéen a may dégg bu nit faatuwoo Sénégal balaa ñu koy suli yenn saa yi ñu ne defal leen ko fidaawu baat baa ngi ni mooy fidiya mooy jotu jotu leen ko lan mooy jotu baas jotu lu muy tekki ci olof mooy policier bi dafa jàpp sa permis nga jox ko 1000 francs mu delloo la permis bi dañoo tëj seen nit ngeen dem tribunal joxe dara ñu bàyyi ko mu ñibbi yàlla daa rey kenn war ko jëmee safara gaa yi ne déedéet nañ ko jotu daf leen nàngam bi ñu dem jël ko dugal ko aljanna fidiyatu yowmal xiyaama jotu amu fa jotu ku yaakaar ne da ngay nekk fi ci ay caaxaan dee gaa yi dugg ci biir jàkka ji bismillah bismillah xaw ma ñetti téeméer ak fukk ñu ne aljanna ngay nax sa bopp fidaaw nit moo koy defal boppam dangaa bëgg a jot sa bopp weer weer waa ngi ni awaluha rahma awsatuhu maghfira axiruhu itq min an naar ku bëgg a jot sa bopp jotul sa bopp waaw një njëlbeen yërmande digg bi njëggal fin bi nga fexe nga jot sa bopp ci safara boo waroon dem safara nga fexe ci weer wii ñu efface sa tur waaye boo nekkee ci caaxaan yi di foo xamoo yàlla xamoo yonent xamoo islam ba nga faatu nga bàyyi nit ñi seen ginnaaw ñu dajale ne fi daaw ngay nax sa bopp leer laa leen wax waaw ku bëgg a jot sa bopp jotul sa bopp léegi boo bàyyee ba dee amatul njëriñ waaw daa koy defal sa bopp de ni nga koy defalee sa bopp mooy jaamu yàlla du nga toog fële rek julli jot nga laan ko bañ a julli ba pare yor su kurus bismillah bismillah bismillah rahmaani rahim bismillah rahmaani rahim matal ngeen ñu ne matal lañ fii gis bu ñëwee ja jàkk armeel yi bis def leen ñeen fukki xulwa fi ñu ne def leen ñeen fukki xulwa ak fii maam it allahumma salli ala sayyidina Muhammad benn la duñ waaw def leen ñeen fukki lixlaas rapidement gars yi pare mus naa fekk benn dëj tukulóor ñu ne daf leen xaw ma téeméer ak nangam rek ku pare na wax pare na bi waa ji naan daf leen ñetti téeméer ak nangam ku pare na ne pare naa rek am ku ne pare naa mu ne ko yaawi yaawi mooy gaaw na xam nga lu tax am nañ ñoo xam ne dañ naan def leen lixlaas ñoom xamuñu luy lixlaas dañ naan lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas xamuñu ne lixlaas mooy xul wallaahu waaw koo ne def leen ñeen fukki xi lixlaas bu ne ne lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas da nga xam luy lixlaas wala ñu ne na ngeen jàng fatiha bu sell fatiha bu sellul daam di ngeen koy dégg wala du ngeen koy dégg ah fatiha bu sellul daam ñaata fatiha ñoo am ah kon kay benn fa jàng leen fatiha waaye jàng leen fatiha bu sell loolu mooy lan mooy dañoo bëgg yow mi jàng fatiha bi na nga def ndànk génne xarf yi waaw mais est-ce que fii tey rek lañ ko war a def loolu loolu bis bu nekk dañ la ko sant dañ la ne moytul jàng alquran di ko yàq ndax rubba qaari ul quran wal quran yalanuhu ñu bëri ngi jàng alquran alquran di leen rëbb waaw a onze a onze luy a onze onze onze mel ne kuy nappi a onze a ouzu la ñuy wax kenn dox a onze bisimilaay kenn dox bisimilaay bismillahi asla bis soo ne bisiri soo ko defee kasara rek yàq nga ko bisimi ñett yëpp nga def ko ci suuf noonu yàlla dimbali ay saa nga ko ne auju billahi auju auju billahi min ashaytani rajim wala rasululahi rasulu rasulu baat yi dañ koy yàq ah safuru laay safuru laay subaana laay laay laay lalaa jaakubar oli allah jaakubar mooy jaakubar amoon na ndeysaan benn juma boo xam ne imam bi imam bi bu ñëwee bu ci minbar bi toog bilaal bi dafay bëgg a wax jaa imam jaa a imam xam nga loolu mooy imam ñëw na xam nga loolu sax du sunna ah jaa a mooy ñëw na fii lu maa di al imaamu jaa a al imaam loo xam ne yaa imaam yaa imaam mooy e yow imaam léegi du benn yaa imaam ak jaa imaam mais baat di la ñuy dégg xamuñu lan la rek su ko defee ñoom dañuy nattatle beneen bu gën a dangereux xoolal imaam bu taxawee fii ñi nekk fi ci ginnaawam nan lañ tudd ah déedéet am na ko wax baat bi naayim naayim xam ngeen mooy lan ci arab mooy kuy nelaw imaam buy jiite kay ku nelaw warul nekk ci ginnaaw naayim mooy kuy nelaw xam nga lu ñu war a wax xam nga lan lañu bëggoon wax ñu juum ñu ne naib naib nuunun alifun mu nekk naa hamza ñëw baaun ñëw mu nekk naib mooy kuy wuutu waaw waaye naayim moo taxit jàkka yi am problème imaam bu juumee naayim yi ci ginnaaw ñi nelaw nuñ koy viite nuñ koy nuñ koy gàggante ñi nelaw ñu ne ci ginnaaw loolu la ñuy wax naayim wala du yéen loolu ngeen di dégg ci dëkk bi wala bu fekki wax naa leen ne su ma waxee loolu dëgg ñëw leen fii ngeen ne arrête beneen baat bu gën a dangereux baat bi ma wax leen Sénégal borom xam-xam nan leen tuddee intellectuel français yi nan la ñuy woowee borom xam-xam yi ca ci ah non ci arab ah yow defar nga baat bi les ulama les ulama daje nañ les ulama di Sénégal daje nañ xam ngeen luy zulama mooy tooñkat yi jamu zulm lan lañ waroon wax al ulama mais les ulama tooñkat yi daje nañ luñ fanas du baax dañoo waroon wax al ulama waaye les ulama zulama la ñuy wax maanaa ci Sénégal baat yu bëri yu ñuy wax dañ koo yàq dara baaxu ci li ko waral nag mooy jànguñu diine ji jànguñu arab bi jànguñu alquran bi jànguñu arab mënuñu lire alphabet arabe loolu moo ñu indil problème baat yi du ñu xam lu mu firi waaw xoolal kenn koo xam daf fekk kilifa guy wax bu kilifa waxee rek mu ne ko billaahi kasabt billaahi kasabt moom dafa yàpp ne mu ngi bëggoon wax billaahi sadaqt mu naan kasabta billaahi kasabta kasabta mooy lan xoolal baat boobu sax ka ni ñu koy waxee du noonu kasabta kasabta kaafun siinun ah baa un taawun kasab xam ngeen baatu iktisaab lu muy tekki mooy fàggu kazaba kazaba la ñu war a wax araayta alladi yukadibu kazaba ah mu ngi kasaba kasaba loolu du baaxul moo tax man la baat yëpp dañ koy yàq fii loolu nag lim ñu jural mooy ñu jël baat yi firee ko nuñ ko warul firee yàq baat yi te loolu islaam bëgg ko waaw yowmal qiyaam mbokk yi yàlla mu ngi wax rëyaayu musiba yi fa nekk ak taraayam waaye ñeenteel li ñuy jële ci dars mooy laa fidiya jotu amul jotu amul yowmal qiyaam de kenn du ñëw yowmal qiyaam yàlla ne malaaka yi yóbbu leen ci safara ñu ne xaar leen ñu jotu ko jàngeen alxuraan yàlla mu ne yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi banihi wa saahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ard summa yunji baat boobu ñu wax léegi aaya yooyu ñu wax lan lay tekki yàlla nee na ëllëg yowmal xiyaam kàccoor bi bañoon jaamu yàlla dana bëgg lan jot law yaftadi la yàlla baat bi la yàlla indi law yaftadi dana jot min adaabi yawmi izin ci mbugalum keroog bi bani ay doomam ak ay mbokkam ak ay soxnaam ak fameem yëpp yàlla ne ko loolu yëpp soxla ma mu ne yàlla jëlal waa kaw suuf yëpp nga dugal safara nga bàyyi ma dugal jan kon kooku ndeyam ak baayam sax bëgg nañu dugal parce que waman fil ardi jamian ndeyam ak baayam dugg nañ pour rek rëcc ci mbugalum yawmal qiyaamati summa yun ji yàlla mu ne ko kalla déedéet tey mbir mi yow kese la kon jotu amul yawmal qiyaam waaye ak rammu wala shafaatun tanfaul kaafir rammu yéeféer yéeféer kenn mënu ko rammu bu ñuy rammu sax nag naan jullit bu ndaw boo xam ne tarxiis na tooñ na nangama waaye yéeféer kenn mënu ko rammu yawmal qiyaamati waaw kenn du ràmmu ëllëg yaa yéeféer yi ñu génn ci biir safara mukk kenn mënu ko ndax yàlla moo ne yéeféer yi wa maa hum bi xaarijiina min an naar du ñu génn biir safara wa maa hum bi xaarijiina min an naar duñ fi génn ndeysaan yaa ngeen ci alxuraan waa safara bu ñu duggee safara dañ fay nekk ay at safara tàng jër jër jër jër bu leen rek ndeysaan ñu ñëw ñu ñëw ci bunt bi ñoom waa safara di woo gardien bi naan ko yaa maalik yaa malik udcu lana rabbaka liyuxafifa anna yawman min al azab ay malik malik wool ñu sa boroom wool ñu sa boroom nañu nañu nañu oyofal benn bis ci mbugalu yowmal xiyaama allahu akbar yaa malik udcu lana rabbak li yuxaffifa anna yawman min al azab benn fan la ñuy ñaan xoolal benn fan au lieu sax ñu ne yàlla génne ñu éternellement mais di yàlla may ñu benn ngoon rek waaye yàlla may ñu benn fan ñu noppal li yuxaffifa anna yawman benn bis la ñuy ñaan de waxuñu juróomi bis waxuñu weer waxuñu yàlla génne ñu ko ñun nañu noppalu benn fan rek boroom xam-xam yi nee nañ bu ñu waxee baat boobu danañ toog ay siècle siècle siècle siècle siècle siècle yàlla doog leen tontu lu mu leen di wax ixshau fiha wala tukallimuun waaye nuur leen biir safara waaye bu leen waxateeg man say jeex na yàlla ne nuur leen bu leen waxateeg man ñooñu say kenn dootul dégg ñu wax parce que yàlla bëggul dégg baatu waa safara bëggu ko dégg bëgg ko dégg par rapport ak jullit yi nga xam ne nag ndeysaan dañoo tarxiis dem safara fekk ñu ngi yóbbaale ngëm da ngay dégg ñenn ñi nga xam ne ñu ngi fa ci biir safara si di woo yàlla naan yaa xannaanu yaa mannaan yaa xannaan yaa mannaan ndeysaan yàlla day woo jibril mu ne ko jibril waaw mu ne jibril demal nga génne ñooñu di wax sama tur bi waay jibril mu ne yàlla gaa yi dem naa ci seenu jëf seeni registre jëf dem naa fa yow yow yàlla fekkuma fa ñu def lu baax amuñu lu baax ci seeni jëf seeni registre këyit yi fekk ñu fa jëf ju baax yàlla mu ne jibril jibril ñi sama tur la ñuy wax xanaa déggoo ñu naan yaa xannaan yaa mannaan hal min mannaanin wa xannaanin illa allah jibril yàlla jibril mu ne yàlla ñii kan la ñuy woo est ce que yow lañ woo yàlla mu ne jibril hal min xannaanin wa mannaanin illa allah est ce que am na ku fi tudd xannaan ak mannaan déedéet kooku fi tudd mu ne man mu ne kon man la ñuy woo dama nga génne leen waaw ñu daal leen di génne ndeysaan biir safar noonu lañ ci yàlla musa yàlla bu nu yàlla dugal safar mbokk yi ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun waroon nga di imaginer tey jii bu ne woon dañu koset beneen almet ñu teg ko ci sa nopp ba beneen almet bu jeex ñu jox la cent mille nga ndogu ji benn waaye ne la am nga loo ndogoo tey nga ni déedéet mu ne kaay ma koset beneen almet ma téye ko tiimale ko sa noppi ba mu jeex ma jox la cent mille looy wax kan ci ñun fii ci jàkka ji moo koy nangu après bu la joxee cent mille boobu da ngay dem faji ji noppi bi ah soo moytul sax nga double ci yow sax alalu bopp ba pare naan si tët tët tët yow li nga ma jox ma tut li nga ma jox yëpp gis nga bi ma demee yëpp ordonnance laa ko jënd ak fay hôpital boobu léegi maa ngi jënd ordonnance waaw bu fekkee ñemewuñu beneen almet beneen almet laa wax kon sondel nag kan moo ñeme ñu taal sondel nga teg nii sa loxo tiimale ko ci ba sondel bi jeex kan si ñun fii ndax am na ko fi ñeme waaw kon gaz nag bu ñu taal teggi cin bi ne la toog ci ba gaz bi jeex may nañ la 24 heures ba gaz bi jeex kan ci ñun mooy jàmbaaru loolu kon war nañu ragal yàlla war nañuy xalaat safara mooy yàlla lu mu neex neex soo xel demee ci safara war nga arrêté Maalik ibnu Dinaar nee na bu ma amoon ay nit yoo xam ne dama leen di fay salaire ñu jaar ci mbedd yi bu nit ñi nelaw guddi ma naan leen mu naan leen ittaqu naar mooy leen safara mu ne dinaa ko def Yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu demee laylatul isra wal miraaj dafa gis Mikaayil kanam ngaa ngi lëndëm mu kanam ngaa ngi ñëkk Yonent bi mu ne Jibril kii kan la mu ne ko kii Mikaayil la mu ne waaw lu tax moom du reetaan mu ne dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara mu tax du ree musul ree Mikaayil maa lii laa ara Mikaayil laa yadxak lu tax Mikaayil mi du ma ko gis mu mu ree yenent bi Jibril ne ko Mikaayil dafa yaakaar ne bu reetaane yàlla dugal ko safara waaw ñun nag waxuma la ñun dañuy ree waaye dañuy def bàkkaar da ngay gis ku def bàkkaar di zibilé di yëkkati loxo yi sa gaa yi topp la naan gi gëree la fekk li mu def bàkkaar la ma joxe ci misaal ku ëmbal xale bu jigéen lan la xaritam yi di wax mais boo yaa gëree jaar nga ci kawam nii mais booy yow ah yaa ngir yéega ba nga taxaw kanam yàlla mu ne la doom ji yaay baayam laaj enquête di la enquête di nga xam ne doo guerrier waaye nag réew mi lëndëm moo tax tey pour nit ñi jàll delluwaat jaar yoon day doy waar trop trop mbokk yi ndax dan noo waxul dëgg coow li coow li mooy Sénégal dan noo waxul dëgg te dëgg gi mooy dem leen ngeen jaamu ji yàlla bàyyi fo mais maala sax fo la ñu encouragé fo diina ji sax soo gisee nit ñi duñu ñu teree caaxaan yiñ ci dugal allahu akbar hôpital bi ma jógee léegi léegi am benn bureau bu ñu fëgg ndaw si yéex a ubbi mu ubbi bureau beeg li mu solaat mees yeeg ma ne ko yow xanaa da nga doon xëdd mu ne ma xëdd heure bii ma ne ko ah sa gémmiñ ngi tax na de mu xool ma ne ma yow xanaa ustaas nga waaw xam nga nit ñi imaginer nit nekk ci ramadan nga ni yow gëm nga yàlla say ween génn ci biti nga def bopp neen gëpare greffage nga ni yow gëm nga yàlla dangaa woor ah est-ce que nit mën na tuuroo pot sàmbur ak saw yi ba pare lal si jaade ne damay julli naka la nit di takkee ba pare ne damay dem ci yàlla xanaa xamu leen ne mais sobe la ah naka lay nekk ci boppu jigéen bi wala jigéen boobu mu ne damay julli lan laa bëgg a wax ci sobe la waxuma ay saw laa kii de dama la bëgg wax ne dafa araam nooy yenoo lu araam taxaw ci kanamu yàlla kan moo ñemee sàcc ba pare dem ci kanamu procureur nan ko mu ngi nii waaye du man de mu ngi nii mais du man ñu ne waaw loolu mooy lan ah li ñu sàcc mi ngi nii de waaye man de sàccu ma dama ko romb rek jël ko waaye du man nag loolu mooy da ngay gis ci suñu dëkk bi nit ñi mooy yàlla ba pare ne ñoom ay jullit lañ loolu mu nekkee yow kay da nga naan man gëm naa yàlla nga jéem a mel ni yàlla bëgg di góorgóorlu soo tarxiisee nag nga jéggalu waaye da ngay gis koo xam ne fas dama fekk benn naar bu jigéen fii ci hôpital bi ma fëgg benn bureau rek bu fekk fa ku jigéen ku toog xees pecc man ko asalaamualeykum mu ne waaleykum salaam man ko sénégalaise mu ne si ku musulman mu ne si ko da nga woor mu ne ma waaw ma ne ko bopp neen bi nag mu ne xam naa sama diine de ma ne ko dugguma foofu waxuma xam nga diine wala sénégalais yi boo leen di jéem a wax affaire yàlla dañ lay jéem a indil ay débat yoo xam ne man gëm naa yàlla ah man man man jullit laa ma ne ko xoolal kan moo la wax gëmu amoo diine da nga fay dégg baatu amoo diine man dama ne ana sa muuraay laa laaj yow yaa ma ne jullit bu jigéen nga mu ne waaw ma ne ana sa muuraay bopp bi non man man xam naa sama diine non ma ne ko xeexee soxna si man waxuma xamoo diine waxuma doo jullit dama ne ana muuraay bi ci bopp bi mu ne non mun naa nekk jullit te duma muuru gis ngeen mën naa nekk jullit te duma muur sama bopp loolu ban aaya la ban aaya la yàlla wax ci alxuraan alxuraan ñaata saar la cent cent quatorze ok ci biir saa 14 yi yéen ñi mokkal alxuraan fii ban aaya la yàlla wax ne jigéenub jullit mën na nekk jullit bañ a muuru bismillah man bu ngeen amul aaya man am naa aaya dangaa war a muuru yéen nag laay xaar ngeen indi seen aaya mën ngaa nekk jullit bu jigéen te doo muuru acca amuleen aaya kon mënu ma indi sama aaya yàlla moo wax ci suuratul ahzab aaya 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما yàlla nee na yow eh yow yonent bi gis nga loolu gaa yi naan mbay ci sa weewu tànk da ngay digle lu baax yonent bi bu mu jógee di woote yàlla da ko ne sa biir kër ba pare bi mu jógee di waaraate yàlla li mu ko njëkk a wax wanzir asiratakal aqrabin waaral sa mbokk yi la jege bi mu jógee di xeex yàlla ne ko wa qaatilu alladina yaluunakum min alkuffaari xeexal ak yéeféer yi la jege ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla yónnee muy waaraate ay mbokkam la njëkk a woo dafa daw yéeg ci xaayaru safa daan ne waa saba ñëpp daw ñëw muy xool nag yaa quraysh yaa bani abdul mutalib noonu mu naan yaa yaa yaa mu gestu gis abbas mu gestu gis fatima doomam mu dagg wax yëpp nag adressé ko yaa fatimatu bintu muhammadin sali min mali ma sit fa inni la ugni anki min allahi shay fatima laajal sama alal maa ko moom loo ci soxla ëllëg ma jox la soo jaamul yàlla ëllëg yowmal xiyaam mënulu ma la dara kon wax jàngoog su fekkee sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moom day moo wax ne ci gémmiñam yowmal xiyaam mënuma fa dara ah ma sama keneen mbokk yi nañu yëg ne jotu amul yowmal xiyaamati ku yaakaar ne jotu am na fa damay def ci lu ma neex bu ma dee rek comme tey li am ci àddina bi da ngay def lu la neex buñ la waree tëj nga joxe caution dem tëddi sa kër maanaam da ngay sàcc 10 milliards ñu jàpp la ne la sàcc nga 10 milliards joxeel 5 yi nga joxe 5 yi dem ñibbi léegi yeneen 5 yi nag nga nekk di noos moo tax ku dem ci gouvernement da ngay sàcc parce que du mujj fenn ana ñu jàppoon fan yee naan dañ leen di auditer gars yi tontu leen ma bàyyi nañ leen ñenn ñi ñu ngi leen di waaj a bàyyi kon ana liñ sàccoon dañ leen di nax de feeg ku gëm ñi gëm l'islam gouverné wuñu leen Sénégal nii lay mel nii billahi wallahi wa taalahi feeg amuñu gouvernement boo xam ne président bi buñ ko ne ittaqillah mu jooy ah feeg palais bi tabaxuñ fa jàkk demagu leen ma laaj leen yéen waa Sénégal kañ ngeen di am pale buñ tabax juma kan moo may tontu pale kañ lañ fay tabax juma gaa yi ah mi kenn du tontu pale war na am juma wala warul am juma ah war na am jàkk wala amul jàkk pale war nañ fay nodd wala warun fay nodd allahu akbar kañ ngay romb buntu pale rek dégg bilaal bi naan allahu akbar allahu akbar nga ni wax nga jékki-jékki rek gis président yor yor di génn di dugg ci biir jàkka ji simi ñaari dàll yi allahu akbar yow yàlla na ko yàlla may waay pourtant jaadu na de ah quatre-vingt-quinze pour cent quatre-vingt-quinze pour cent la ñu wax de ëpp na ko sax de ah quatre 13 millions musulmans Sénégal 14 millions la xanaa boo jëlee benn million yi nga boole ko ñële kon ñun 13 millions ñu ñuy laaj ndax war nañu tabax fenn jàkka kenn ñemewul tontu nan xoolaat suñu bopp nan xoolaat suñu bopp nan xoolaat suñu bopp jàkk ah ndax war nañu ko tabax place sàngam kenn ñemewul tontu. ñëpp ragal ñëpp tiit xanaa dañ naan sax léegi gars yi ñëw tëj arrêté tafsir bi gars yi ñun ay jullit lan nag war na am président boo xamante ne quand même day julli ji jàkka wala waruñ ko am yal nañ ko yàlla may nañ ko yàlla may ah war dëgg-dëgg war na mu nekk de ah ah am na gambi waaw waaw kon yàlla na yàlla def ñu mel noonu ñu am ko ñun tamit ñun tamit yàlla na ko yàlla may waay mbokk jullit yi juróomeel mooy xusnu taalil lil amri wa nahyi bima yusajjiu ala al imtisaali wa tarki mbokk yi war nañ góorgóorlu dëgg-dëgg ah ci digle lu baax ak di ci encourager nit ñi ak lépp loo xamante ne day tax ñiy def lu baax sax ci lu baax loolu waaye war nañu góorgóorlu di encourager di bàyyiloo nit ñi lu bon ak di leen décourager pour ñu nekk ci lu bon loolu mbokk yi bu ma tënkee tënk bu gaaw euh, sunu ñetti aaya yi lii mooy juróomi mbir yiñ ci war a jëlee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سنبرم نينا يا أيها الذين آمنوا yunaadi ar rabb tabaraka wa taala mbokk yi buur bi mooy wooteeti sunu borom ar rabb tabaraka wa taala sunu borom moo nuy woo mbokk yi ku sa kilifa woo nooy def dégguma tontu de ku sa kilifa woo bu dee sa kilifa gi góor la wala jigéen da ngay wuyu wala doo wuyu ah da ngay wuyu ku sa sëriñ woo nag da ngay wuyu ji wala doo wuyu ji ku police woo nag ku gendarmerie woo ku procureur woo ku président woo nag ngay wuyu ji naam waaw kon ku yàlla woo nag ku yàlla woo doo war a def ku yàlla woo ndeysaan te yàlla bi mu lay woo woowu la sax ci sa tur ndeysaan ndax lan ndax bëgg woot xam nga yenn saa am na woote bu neex ak bu naqari ki la fekk nga toog tiim say bagage di waaj a ndogu mu ne la kaay wuyu sa jëkkëru yaay ak ki la fekk nga toog mu ne la kaay wuyu sa papa wala kaay wuyu sa baay ñett yooyu bu gën a neex ah bu ci gën a metti bu gën a bon kooku dafa fen dafa fen li mu wax mais wax bi moo moo normalul moo tax yàlla bi mu nuy woo woowu nu sax ne eh yéen yéen waa eh eh diw ana ñee ana yaa ayyuha alladina amanu eh yéen ñi ma gëm sahaaba ba nee na boo déggee yaa ayyuha alladina amanu mu ne taxawal ndigal la wala tere la defal wala bàyyil kan moo la woo yàlla yàlla moo woote ñan la woo ñi ko gëm yàlla bi mu bëggee nu woor bi mu nuy woo lu mu wax yàlla bi mu bëggee nu woor ban baat la nu woowee yéen waa Sénégal yéen waa Arabie Saoudite yéen waa Makk yéen waa Médine yéen waa Yëmbal ana waa Bagdad kon day bëri kon yàlla bu bëggoon dëkk bu nekk mu woo leen wala nit ku mu nekk mu woo ko mu nekk wala yaa ayyuha allazina amanu rek am ñu gis seen bopp baat boobu di yaa ayyuha allazina amanu ñaata yoon la ñëw ci alxuraan ku ku ko wax suba am kaamil ah 104 yow 88 yow kuy àtte ñett yu waxangoog de ku ñuy àtte 80 88 ñeenti waxangoog de 98 88 ah am na ñaari nit ñu tolloo de yaa yàlla si naa amoon ñaata la ci alxuraan ah waaw yow wax nga sa bos gars yi wax nañ léegi nag après insha allah kan moo ñuy àtte ana siis yi yaay siis bi bismillah ñu bàyyi monsieur le siis mu àtte ba suma ko ok kon nee na nee na suba dinaa indaale kaamil bi may ñëw ah déet jox nañ affaire bi monsieur le procureur ba pare ay dama juuma moom moom moom mooy àtte suba waaw affaire bi moom génn na samay loxo egg na ci kilifa ga mooy àtte suba man daal suba li ma xam mooy naa indaale sama kaamil insha allah kaamil bu rafet la nag waaw suñ soo ñëwee ah bu gaa yi egsi ko ñu indi leen beneen laaj tirage leen beneen laaj du noonu mu ngoog kon yàlla moo woote yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm ñu ne ah kon nan déglu comme nun noo gëm ñun ñoo ne noo gëm yàlla ñu xool suñu boroom lu mu nuy doyee mu ne ittaqullah mooyu leen yàlla moytu leen yàlla ittaqullah li muy teg mooy moytu leen moytu leen yàlla su la président ne woon moytu ma ak sa papa ne la moytu ma ak commissaire ne la moytu ma ñetti moytu ma yooyu bu gën a garaaw ah bu président sa papa moo gën a garaaw non sa papa non paa bi ay paa bi toog fi naan ma naa ko moytu paa bi bu reppee bu mu moytuwul ah da ngay gis koo xam ne ndeysaan papa yi da koy jéem a dóor mun a zacc ci loxo yi téye ko téye paa bi ne nii ne nii ba sonn góor gi góor gi góor gi góor gi waaye bu doon police ñëwee woo ko police ñëwee ngaa jàpp ci loxo alkaade yi wala nga jàpp ci seen yére kon président waxi noppi kon kay bu président moo gën a garaaw waaw léegi nag su fekkee ñun ñemewuñu nii ñu dëkkal ñii ñooñu buñ ñu ne moytu leen ñi ñu normal yàlla ne moytu leen ma kenn yëgul ko yaramam ittaqullah moytu leen ma man yàlla yàlla jar naa moytu de wallahi yàlla jar naa moytu wallahi mbokk yi yàlla jar naa ragal tukulóor yi nee nañ allah soo hulaaka o jola yàlla bu ñu ko ragalul da koo neex yàlla bu ko neexoon fii nga toog rek nga ragal ko fal force fii nga toog waaye xam nga yàlla moom ndeysaan ay mbiram da lay bàyyi rek nga am sa liberté bopp def la neex waaye fii nga toog mbokk yi fii nu toog sunu yaram yi ban cër moo gën a tuuti ah bëñ moo gën a tuuti ci yaram yi daal ci cër tey bu yàlla yëngaloon benn bëñ fi nga toog ndax di nga ndogu tey ndax di nga eggali tafsir bi ndax booy ñibbi di nga dox léegi nga luwe taxi même booy xaalis nga ni ko mu ne looy lan mu ne ko ay boy ay boy dootoo waxati ah ah mës ngaa gis ku bëñam di metti muy wax allahu akbar bu ko yàlla yëngaloon laax te yëngantu ko mu yëngal ko te yëngantu yëngantuwul kon ñun ñëpp suñu journée bi du yegg booboo gën a ndaw nag booboo gën a tuuti kon bu yàlla yëngalee lu gën a mag loolu nag ah kon bu la yàlla bàyyee nii dafa la dara nga nekk ci sa jàmm war nga ragal yàlla war nga koo moytandiku ndax yàlla du sa morom yàlla du sunu morom mbokk yi yàlla borom la du morom yaa ayyuha alladina amanu ñu ne waaw mu ne ittaqullah moytu leen yàlla après bu ñu moytandu ko yow yàlla loo nuy digal lu ci des ittaqullah mu ne xaafu azaba ragal leen mbugalam nan la ñuy ragalee mbug mbugalu yàlla mooy fam tasilu amra ngeen jàpp ci ndigalam wamra rasula ngeen jàpp ci santaane yonentam wajtanibu nahyahuma ngeen sori ñoom ñaar seen tere noonu la ñuy ragalee yàlla ku bëgg a ragal yàlla ci ñun ku bëgg a moytu yàlla ni nga koy defee mooy moytul mbugalam moytu mbugalam mooy lépp loo xam ne su ma ko defee yàlla dina ma mbugal ëllëg yowmal qiyaama bu ma ko def waaw sooy tukki lépp loo xam ne boo ko dugalee sa valise wala nga yor ko sa loxo wala nga dugal ko say poos boo nee aéroport cëpp ci kaso bi nga jëm doo ko yore wala d'accord ngeen wala ah lépp loo xam ne booy tukki war a jël vol ñu ne nangam ak nangam ku ko ku ko fi indaale fii doo dem doo ko yóbbaale wala waaw naka kon nga jéem waree tukki jóge àdduna jëm barzaq jóge barzaq dem àllaaxira yàlla ne bagage yi bu ko fi kenn indaale nga buub ci juróomi valise yenu ko ne nañ koy yóbbaale te yow lii nga yor ci bagage loolu la yàlla ne lii bu ko fi kenn indaale yow nga buub ci nag lu doy yii nga bokk leen yii nga yenu yii nga dugal ko ci maal bi ah yii nga dénkaane ko daan ne après ngeen indil ma ko te yow bagage yi nga yor yàlla la koo tere borom xam-xam yi nee nañ nit suñ ko dugalee ci kër ci salle de bain sangu ko ba mu set mu génn ñu teg ko ci digg néeg fomp ko ba yaram bi wow ñu diw ko peñe ko indil ko yére yu bees sàq yu jóge léegi léegi léegi léegi ca tailleur ba solal ko ko fel màtt ko bu ñu ko solalee yére ba pare fel màtt ko fel bi fu mu nekkoon ci moom la nekkoon waaye armeel bu bees sang bu bees sang bu bees armeel bu bees ay yow ay yar fekk la ci armeel bi yaa ko indaale ku dee ban sang lañ koy sang bu bees wala bu xuur sang bu bees tàq bañ nañ ko ba liñ lay sangee sax lépp ay bees kenn du la sangee saab bu des kenn du la sangee njàmpe buñ mos a sangee ah parfum bi ñu lay def kenn du ci laalal nit yëpp dafa bees guttu arroseur bi sax dafa bees malikaan bi wala perkaal bi daa bees ñu dugal la ci kees gi yóbbu ba armeele gas pax bu bees wala ñu dugal la ci suul ay yar fekk la ci biir pax bi yaa indaale loolu yaa indaale lañ la dóoree wala kon yàlla nee na na ngeen ma ragal na ngeen góor góorlu ba moytu sama mbugal ngeen jëf samay santaane maak samay yonent ngeen moytu samay tere ak samay tere yonent borom bi kon woo nanu ci baatu ngëm mooy tandiku loonu waaye des na beneen ndigal bu mu ñuy joxaat mu ne wabtaxu ilayhi alwasila na ngeen ut ci moom sàkku leen ci moom lu leen koy jegeel luy tax ngeen jege ko wabtaxu sàkku leen ut leen uti leen bëgg leen wëri leen alwasila lépp loo xam ne day tax ngeen jege ko baat bi laa doon wax sànq aay bi ci aay yëngal Sénégal la bokk yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha wabtaxu ilayhi alwasila sa ta ta ta ta baat bi aaya bi ci aay yëngal àddina la bokk alwasila mooy lan luxatan ci làkku arab waxoon naa leen barki démb ne ñi jàngale diine lépp lu ñu lay jàngal bu doon benn oustaz la benn professeur bu nekk ci école di jàngale ñu jox koy matière prof bu nekk ci matière yooyu boo duggee sa premier jour ak élèves yi balaa ngay def dars li ngeen war a def dars boo war a bind war ngaa wax nangam luxatan bu doon fiq la nga bind date bi tere def al madda ah al fiq al mawdu ah maa huwa al fiq nga war a bind lan mooy fiq après nga ñëw maa huwa al fiq lugatan après nga ñëw istilaahan su fekkee hadis noonu nga war a def bu dee naxwu noonu nga war a def loo war a jàngale war nga ñi ngay jàngal nga wax leen li ngeen di jàngal lumu lii lan la ba pare ba xale bi xam lii lan la nga doog a jàngale da ngay jàngale alquran wax leen ma huwa alquran lan mooy alquran ba xale yi xam lii nuy jàngalal la ci lañ koy respecté waaye ñoo rek nga commencé waaw loolu kenn du ko def moo tax borom xam-xam yal nañu leen yàlla fayal baat yi nga xam ne souvent day indi jafe-jafe dañ ñuy wax ne loolu lu muy tekki maa huwa ba pare suñ ñu ko waxee ñu doog a dem al wasila baat bi di wasila nga xam ne tey li ma wax sànq yëngal na àddina bi luxatan ci làkk arab lu muy tekki mooy al qurbatu waaw al qurba mooy jege al wasila moom lañ naan moyen jege al qurbatu ah wa hiya fi'liya bi maana maf'ula ay mutaqarrabun biha min attawassuli ila fulan taqarraba ilayhi bi kaza wa shahiduhu min qawli al arab qawlu al antar inna ar-rijala lahum ilayka wasila da ngaa bëgg a dem fenn foog nga am jumtukaay yalay jegeloo di la yóbbu ca barab ba loolu mooy alwasila mu ne taqarrabu ilayhi bi fi'li mahaabihi wa tarki masaaxitahu bu fekkee ci istilaaxan baat bi li muy tekki mooy jege leen yàlla waaye yéen jullit yi yéen ñi yàlla yéen ñi gëm yàlla yéen ñi yàlla woowoon léegi ne leen e yéen ñi ma gëm yàlla nee na ngeen jege ma ci nan ci naka mu ne bi fi'li mahaabihi ngeen def li ma bëgg ci ngeen may jege def leen li ma bëgg mbokk yi soo amee doom muy def li nga bëgg dalay jege wala dalay sori ah soo amee soxna muy def li nga bëgg dalay jege wala dalay sori soo amee liggéeykat yow patron bi muy def li nga bëgg da lay jege wala da lay sori ba ci président sax boo amee ministre boo xam ne li président bëgg dong lay def da koy jege wala da koy sori waaw kon jullit boo xam ne da ngaa da ngay def li yàlla bëgg wallahi da ngay jege yàlla loolu la yonent bi wax sànq ci hadis bi ma leen waxoon ne nit du dañ di naafila di naafila di naafila ba naafila bi yóbbu ko yóbbu ko mu jege yàlla jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne wasjud waqtarib soo sujjootee gis nga jaamu yàlla la daf lay jegeloo yàlla wasjud waqtarib sujjootal jege sujjootal jege mooy jullil jege yàlla jaamul yàlla nga jege ko kon ci istilaax mooy jege leen yàlla ci jëf li mu bëgg waaye wa tarki masaaxitahu ngeen sori la koy merloo ku bëgg a jege yàlla ndax da ngay def luy merloo yàlla déedéet jigéen bu bëggee jege jëkkëram lu muy def da koy toggal kaani bis bu nekk ndog def ci xorom ak poobar ah ne ko lii laa mën soo mënee nga lekk ba mënul nga bàyyi ah yaakaar naa boo ko defee ñaari yoon du ñett kon kooku du jege waaye saa yooyu ñu tegal la tey ginaar nga naan wuu suba ñu tegal la beneen bu gën a garaaw nga naan si ñu tegal la beneen ngay wax ndaw si ne leen nijaay nii rek ba weer bi jeex bu soobee yàlla nooy def ah ay jege de ah ok kon bu nu bëggee jege yàlla mbokk yi fii ci buur jumaa ji ñen ñoo bëgg a jege yàlla anañu ah bëgg nañ jege yàlla lan moo nu fa yóbbu mooy ñu def li mu bëgg ñu bàyyi la koy merloo moom yàlla waaw su boobaa tazfaru bil qurbi minhu su boobaa ndeysaan ñu am bénéfice ci jege ko waaw waaw jege ko fa kullu qurbatin wasilatun tuqarribu min arrida allahi mu ne bépp jege jumtukaay la mooy la boo xam ne daf lay yóbbu yow jullit boobu nga am ngërëmal yàlla waaw yonent yàlla Muusa bi mu àndeek banu Israil waa banu Israil di yéex yéexlu di dof doflu moom Muusa dafa daw lagg wàcc leen fa daw jëm ca yàlla bi mu yegsee Moussa yàlla ne ko ana ñi nga waroon àndal mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tardo yàlla damaa daw bàyyi leen ba ndax ñoom dañ faa nekk di yéex yéexlu man nag boo gisee ma daw ñëw damaa bëgg nga kontaan ci man waaw moo tax ku bëgg a dem ci yàlla foog nga daw ku bëgg a jege yàlla léegi-léegi bi ñu laajee sànq ana ñu bëgg a jege yàlla ñu bëri yëkkati yéen ñu bëgg a jege yàlla yëg leen ne yàlla kenn du dem ci moom di dox kenn du dem ci ñu moom di raam kenn du dem ci moom di tiemp kenn du dem ci moom di darngu yàlla ku bëgg a egg ci moom dangay daw fa firru fa firru ilallah daw leen jëm ci yàlla daw lu tax ndax dafa am lu fiy jàppaate boo dawul mu jàpp la ñan ñooy jàppaate ñan ñoo tax duñ dem ci yàlla ñan ñoo ñu bëgg a jàpp ana kan moo bëgg a jàpp ab jullit ba du dem ci yàlla ba tax yàlla xam ne am na ku ko bëgg a jàpp yàlla ne jullit bi dawal fa firru daw leen ilallah jaw dem ci yàlla ba pare mu ne inni lakum minhu nazirun mubin man mii naan leen ngeen daw ñëw ci man li tax ma leen koy wax xam naa ne am na benn waay bu fi nekk am na ñu fi nekk dañ leen a bëgg a jàpp te man loolu may wax lu ma leer la mubin kan la awalan seytaan bu la jàppee doo dem ci yàlla ku seytaane jàpp pare nga ci sa borom ñaar bakkan bakkan ku bakkan jàpp pare nga mooy li ngeen di gis tey topp sa bakkan julli jot nga bañ a julli ndax sa bakkan koor jot nga bañ a woor jaamu yàlla jot nga lànk bu nit ñi naan jaamu yàlla nga naan non loolu aw ma temps quoi temps yi maa ngi ci business bi quoi non aw ma temps booy looy def da ngay julli ci man aw ma jot yow yaa am jotu julli quoi man aw ma jotu julli loolu ndeke nit dina dem ba toll foofu aw ma jotu julli waaw aw ma jotu dem jàkk waaw su julli tollee foofu nag na seetaat boppam ana kan keneen ku fi nekk kuy jàppaate adduna addunya day jàppaate ndeysaan ku mànd ci adduna nga mànd ci bëgg adduna xam nga fan ngay xippee mooy boo duggee bàmmeel ngay xippi ku mànd ci adduna ba gisatoo ba nga faatu ndugal la bàmmeel foofu ngay xippee moo tax adduna day dof loo nit moo tax yàlla subhanahu wa taala aaya yu bëri ci alxuraan nga gis yàlla di nu misaal adduna bal sax wax na bal tusiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun yàlla wax na ci alquran inna masala hadihi dunia ah ilamu annama alxayaata dunia laibun wa lahwun wa zina xam leen gis nga démb wax naa leen benn baat ilamu foo ko gis déclaration la yenn saa yi nga gis ñu bind déclaration de chef de l'état ah ñëpp daw jëndi bëgg a xam président de la république lan la wax ñu gis déclaration allahu subhanahu wa taala kenn liirul kenn jëndul kenn waxul li la mu lii lu mu ilamu yëpp déclaration la yàlla lu muy déclaré mu ne annama alxayaata dunia dund adduna gi ngeen nekk laibun fola rek wa lahwun caaxaan la waaw jeex na te noonu la mel de bu nawet jotee su taw bi tawee suuf si nu muy def suuf si nu muy def day tooy xepp bu suuf si tooyee xale yi bu ñu xëyee nan la ñuy def dañuy tabax ay néeg yéen ñi ñëpp paa yi toog fi yëpp tabax nañ ay néeg waaw tabax ay néeg jël ay tàngal mant xolli ko bënn ko def ko drapeau ah ah Amidou def nga ko de am mu nga yaa paa yi am fii si kii def leen ko tabax suuf tabax ay néeg waaw nga gis daf ay escalier daf ay nangam ah la ilaha illallah waaye gis nga xale yooyu bu ñu tabaxee tabax tabax ba ñu ne leen añ jot na nit ñi nag dañ koy dëggate doog a daw dem añi loolu mooy sunu kër yi loolu la yàlla wax mooy kër yi kër yi ñu gis nii léeg-léeg nga dégg ku ne non alhamdulillah sama kër gi titre foncier la titre foncier mooy lan hmm? mooy kër goo xam ne am na valeur ah borom xam-xam yi nee na du titre fon foncier de titre font la titre font léegi ñu génne la fi suuli la man kay moomoo ko wala beneen ñaata kër ngeen gis ki ko moomoon bi mu deewee ñu jaay kër ga benn waaye ñëw xool kër gi daal di indi ji ay bulldozer musab ñaata kër nga toj ñu def ko ci ay camion suul sànni ji ko ca mbalit cinq jours dix jours huit jours ñu yëkkati fa benn château allahu akbar nga xam ne tey waa ji bu dekki woon ne tëll ñëw rëcc ci armeel rek daw fërërërërërër balaa kay topp ko mu tërërëri yessi bu ñëw ba ci buñu kër gi dañ koy jàpp ndax day jaawale du xam fi muy këram ndax day ñëw fekk changé na keneen jënd na kër su ñëwee dugg ne sama kër waaye ñu naan ko sa kër yow non fii sama kër la de fii dëkkoo fi de mu ne waaw ana sama waa kër fii laa leen bàyyi woon kon kay moomoo yéen ñi toog fi ñaata kër ngeen xam ci loolu kon kay yow loo fi moom kon li yàlla wax mooy dëgg gars yi dañuy jënd rek di toj toj rek waaw fii ak vingt ans ci kanam ku dundaat loolu boo ñëwaatee biir Dakar ñëwaat géejawaay gi gis gis lu bëri soppeeku keneen nekkaat fi vingt ans tey jii sunu papa yi bu ñu ñëwaatoon fii ñu naan papa am na ci ñoo xam ne bu seen maam ñëwaatoon nga naan ñu ne la ñu ne maam maam jooj est-ce que xam nga ne léegi man bu ma bëggee doxi samay soxla du ma toog sama biir néeg laay toog réglé lépp mu ne loolu nu mun nekkee nga ne am na fi benn weñ goo xamante ne waa ji da koy yor toog fële ma toog fële ñun ñaar ñuy wax sama am danaan la yaa mën a fen yow yow yaa mën a fen weñ dina wax foo ko gisee ay temps ko noonu sunu papa yi portable dina am te portable yii ngeen di gis nii yii njëkk a génn nan lañ meloon am ñoo xam ne waa ji bu ko daan téye nii lay def ordinateur ñi ko doon defar ñi njëkk a defar ordinateur ci biir ordinateur bi lan nekk di ko defar ci biir lan dugg di defar ordinateur bi ci biir ñi ko doon defar laa wax de ci biir lan dugg est-ce que yéen a ngi may dégg tey ñi koy defar soo demee siin ay xale yoo am ñaata xale yu tuuti ñooy defar ordinateur yi xal yu ndaw te xoolal yii génn léegi fan lañ jëm des na tuuti ay at ku fi ñëw da ngay gis oto yi di naaw tali yi dootul amati oto yi dañuy naaw nii wir wir di naaw waaw tiim nit ñi des na tuuti ci kanam fa lañ jëm ah. hmm? kon ah def nañ ko documentaire waa gis naa documentaire bi wallaay waaw gis nga kon sunu borom mbokk yi dafa bëgg nu jege ko moom jalla jalaaluhu sunu boroom ñu ñëpp ñu nekk ci wetam ndax ñu am ngërëmam lu xew ah dégg bokk nag ci li tax ñu jege yàlla mooy al amalu saalih jëf yu baax yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahabu ilayya mimma aftaradtu alayhi léeg-léeg léeg-léeg nga gis benn waaye ne damaa bëgg a jege yàlla tey dañoo woor waa ji dem defar café defar benn cin di defar café ok wala mu dem jëndi mburu wala mu dem di defar ay ndogu organiser ay iftar alhamdulillah baax na de waaye aka neex kewaku ki ko di ko def woor su boobaa ndogu boobu muy joxe day tax mu jege yàlla waaw waaye waa ji bu fekkente ne yàlla da ko ne wooral mu lànk ne du ma woor ndogu laay joxe ndogu boobu lekk ko araam na dégg ngeen li ma wax ndax yéeféer yàlla du nangu yëfam ku woorul yéeféer la yéeféer yàlla du nangu jëfam su ma nee yéeféer ku warul yéeféer la nag waxuma ku feebar de waxuma ku am ngant waxuma ku ko mënatul jullit bi mën lànk bañ a woor ne man ndogu lañ ma sant kooku ab yéeféer la ku lekk ndogom yàlla du ko nangu innama yataqabbalu llah min almuttaqin yàlla ñi ragal yàlla lay nangu seen jëf ku ragal yàlla boo jëfee wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura kon aka neex yow mi bëgg a jege yàlla ci jëf yu baax yi ngay def sarax fexeel nga gëm yàlla ba pare nag ngay def lu baax ndax nga mën a jege yàlla munoo ne man damay def li baax lii pour ma jege yàlla ah fekk farata yi defoo ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na li yàlla gën a bëgg ci yéen mooy bu ngeen koy jege ngeen def farata yi balaa nga ne sunna ah loo war a njëkk a wax xam ngeen saa yi nga gis nit mu ne ma man mu ne la man ci ban ahlu sunna laa bokk da ngaa war a wax ba pare man ahlu fard après nga doog a nekk ahlu sunna ndax balaa sunna farata waaw yow defoo farata nga ni sunnit la ñun ay sunnit lañ mbaa yéen sunnit yi du ngeen bàyyi farata su ngeen bàyyee farata moom du ngeen ahlu sunna wala fi nee nañ bale nga ne naam ne fa bala nga ne naam da nga fay nekk mënoo di jalgati julli jot doo julli tisbaar doo julli takusaan doo julli timis doo julli gee doo julli suba guddi gu nekk nga ni bismillah damay naa fi la quoi ba bët set mun lay munoo bàyyi weeru koor nga ni na gis naa benn waay de benn waay laa wax benn waay maa ko gisal sama bët kenn nettaliwu ma ko dañoo toog ci mbaar mi julli jot ñépp jóg jàpp mu jóg jàpp ñu lal si jaaree ne bismillah moom mu toog ne yor benn jukki di jàng ñu julli ba pare mu toog man affaire bi jaaxal ma ma ni kii moom daf ñoo njëkk a julli te man moom bi mu ñëw fi la ma fekk ma am occasion laaj ko ki ñu fa fekk ki ma ki ñu woowoon ma ne ko kii du tax julliwul mu ne déedéet kii moom kii du julli fee la bokk mu wax fenn benn mu ne kii loolu la du julli ma ne julliwul mu jàpp di jàng alxuraan ku julli lu muy dee alxuraan waa léegi yow fekkee ne doo julli ah da ngay jàpp léegi yaa ngi jàng alxuraan nga egg ci aqimu sola nooy def nooy def aaya boobu non quelle contradiction doo julli nga da ngay jàng alxuraan nga yàgg wa aqimu salata wa aatu zakata warkau maa rakiin nooy def aaya boobu ah nooy def wa innaha la kabiratun illa ala alladina nooy def aaya yooyu kon alxuraan boobu kooku di jàng ñu ne pourtant moom day jàng bis bu nekk alxuraan nañ ci loxo bi est-ce que alxuraan boobu pour bu buusewul gémmiñ jàng alxuraan boobu amul njëriñ yàlla boo bëggee nga jàng alxuraan mu nangul la ko day fekk lim la sant nga ne ci sa soxna boo ko nee defal ma ndékki defaral añ defaral reer defalal yëpp mu lànk ah boo wàccee tànku sa tàkkusaan rek mu puus la ñaari nen ak poobar ak ñaari kii mu ne njogonalal yow toggoo ndékki togg añ toggoo reer di togg njogonal est-ce que njogonal farata la Sénégal lan moo fi farata Sénégal lu fi farata léegi añ reer léegi mu ne la man mënuma ko de boo mu ne daal ngay njoganalu ba suur loolu daal laa mën njoganal kan moo fi bëgg a takk jabar ju koy toogal njoganal kese mag waa këram na yëkkati loxo bi du ngeen yëkkati seen loxo jabar joo xam ne njoganal lay toogal yaag sa waa këram njogan da ngeen di njoganal rek yéen moom yéen ay famille njoganal aca gis nga kenn yëkkatiwul loxo waaw léegi yow naka ngay waxee ne man damay jàng alxuraan mais du ma julli mais dinaa jàng alxuraan mais julli moom ak woor ak yooyu yeneen yooyu man du ma ko def ñu ne julli nga ne non non man bokkuma ci woor nga ne déedéet bokkuma ci joxe azaka nga ne déedéet man du ma joxe azaka waaye lee laay joxe lële nga wax tur bi lële ñu ne añ màkka nga ni moo màkka jarte dem mak ñun sunu fii ah waaye yow ah mak léegi yow nga ni
dañuy wax sànq ay yi nga xam ne moo tax Sénégal wax boobu dafa ci ay tuwas yi te itam dañuy wax wala zikrul laahi akbar allahu akbar boobu tamit ci la bokk de ah nee nga de gis nga mbokk yi kon li ñu bëgg a jàngale foofu mooy wax balaa ngay def sunna balaa ngay def naafila mooy ngay def farata ba pare soo defee farata yi nag ba farata yi mat ah léegi nag nga commencé di yokk naafila yi naafila yi nag léegi moo lay jegeel yàlla moo tax ku la raw ci naafila yi moo lay raw ëllëg yowmal qiyaamati ah nu muy demee dangaa julli tisbaar waa ji julli na tisbaar waaye xam nga fan ngeen di rawantee moom dafa ñëw ci jàkka ji avant tisbaar jot mu dóor ñeenti rakk dafa dóor ñaar sëlmal ñaar sëlmal toog xaar tisbaar tisbaar jot mu dóor ñeent ñu sëlmal tisbaar mu dóoraat ñaar yow nga ñëw dóor ñeent taxaw koo pële ah ndeysaan abdullahi abdullahi ibnu xuzaafa radiallahu anhu wa ardaahu dañ ko jàpp moog romain yi ndeysaan romain yee ko jàpp moog lenn ci ay jullit ñu tëj leen kaso di leen mbugal mbugal yu metti buur bi ndeysaan ni mu gisee abdallah mu gis ko rek bëgg ko mu ñëw ci moom ne ko man dama bëgg yow dama la bëgg yow da nga rafet allahu akbar gaa yi démb ak seen sikkim yi ah bu ñu tusngaloo defar seen amaama yi takk ko allahu akbar oh ku leen gis bëgg leen ndax jullit dafa rafet jullit dafa rafet allahu akbar waa ji gis ko rek bëgg ko ne ko yow daal xaw ma lan la mais dama la bëgg léegi xam nga lu ma bëgg damaa bëgg daal nga bàyyi islaam bàyyi muhammad soo ko defee dinaa la may sama jabar sama doom naa jël sama doom bu jigéen may la beneen bi may def mooy dëkk bi maa ko jiite dinaa dagg dëkk bi ci digg bi nga jiite lii ma jiite lii gars yi tey buñ ko waxoon kenn ci ñun fii le président moo woon ne la yow dama la bëgg a def premier ministre may la sama doom waaye nag da ngay def nangam ak nangam da ngay dog da ngay dog koor gi tey ndox a ngi nii naanal tem nga commencé oustaz asalaamaaleykum oustaz est-ce que dinaa mun a fay beneen bis ñaari kii di wut ay ngant ay lay léegi nga gis gars yi commencé ut lay mu ne ko wallahi boo ma mayoon jigéen ñi dëkk bi yëpp nga boole maag li ci àdduna bi yëpp mënumaa bàyyi Muhammad mu ne jël leen ko ngeen tëj ko ci kaso gars yi jël ko tëj ko mu woo mu woo mu woo pale bi kaa leen ñu réunion gars yi ñëw mu ne dama bëgg waa ji ma tëj ngeen xalaatal ma nu may def ba mu bàyyi islaam ñëw ci man ndax dégg naa Muhammad ñi mu àndal soo ci tubloo soo ci tubbiloo kenn rek am nga victoire soo ci tubbiloo kenn am nga victoire waaye dimbali leen ma waa ji tubbi ñu ne gars yi ne ko boole kook jigéen su njaaloowee rek dina tubbi ñu dem jël xale bu jigéen bi gën a rafet ci dëkk bi futti ko yaramu neen indi ko ci kaso bi dugal ko Abdullah nee na bi ma ko séenee muy ñëw yaramu neenam mu ne dama concentré wu ci asmaullahi alxusna mu ne ndaw si bi mu yegsee ci man daf ma yëngal yëngal laal fu nekk ci man kërëj kërëj kërëj kërëj kërëj kërëj kërëj Abdullah ne teg ndaw si daal di yuuxu gaa yi bundi mu ne lii ak ëkk la ak ëkk xam ngeen ëkk am na ñu xamul fii luy ëkk de ñi xamul ëkk nañu yëkkati seen loxo ok ñu leeral leen ko ëkk mooy garab garab buy dund suñu daggee ci kaw dagg ci suuf loolu di des nga xam dañ koy def benn baa nit ñi di ci toog loolu mooy ëkk ndax loolu dina dundaat mu ne kii ngeen ma indi du nit ëkk la maanaam ne garab googu nu dagg la mel ñu daal di koy génne buur bi woote waat mu ne yéen xalaat yéen amu leen ay xalaatkat yoo xam ne mën nan maa xalaatal benn pexe kii génn ci Muhammad gaa yi ne da nga koy tiital ne da nga koy rey soo ko tiitalee rek da ngay rey ay nit ci kanamam ay jullit ci kanamam boo reyee ñooñu moom dana tiit bàyyi li mu nekkee ñëw ci yow. buur bi daal di joxe ndigal ne baxalal leen ma ñaari cin ñu indi cin yu ngand yooyu nga xam ne moo raw cin yi ñuy toggee sunu dëj yi fii ak ngénte yi cin yi gën a ngand ñu baxal ndox mi ndox bu eggee ñaata degré lay bax ah. ndox moom bi muy tàng sans la départ jëm kaw ñu jekki-jekki rek daal di génne benn jullit ci biir kaso bi ak Abdallah ñoom ñaar ñu ànd ñaari cin la ñu yegg si rek ñu jël benn jullit bi ne ko pancang ci benn cin bi biñ ko dugalee xam ngeen nu mu def yàpp bi dafa wàcc yax yi jóg ci kaw rek buur bi ne Abdallah beneen cin bi ci nga jëm de soo bàyyiwul Muhammad rek Abdallah jooy mu ne ko loo jooy yaa ngi nii nee naa dama lay may sama doom bu jigéen jox la genn wàllu ci dëkk bi nga jiite ko ah tëj naa la kaso loolu yëpp ma lay neexal nga bañ tey nga gis kii dee ngay jooy yaa ngi ni tappet nga ba pare munoo woon nangu bu yàgg ba rek mu ne président bi buur bi jooyu ma lool de mu ne kon looy jooy mu ne kii def maa jiitu aljanna kii def maa jiitu aljanna waaye xamoon naa nag dina ma jiitu xamoon naa ko buur bi ne ko lu tax mu ne ndax biñ ñu tëjee fii su ma waree benn fan mu woor ñaar su ma jullee ñaar ràkk mu julli ñeent su ma tuddee yàlla benn yoon mu tudd ko fukki yoon xamoon naa nim ma rawee ci jaamu yàlla dina ma jiitoo noonu aljanna kon ci naafile yi la ñuy rawante ku la raw ci naafile yi ku la dàq woor ayaamul biir lundi jeudi sitta sawaal yeneen yi ci tegu dàq laa naafila guddi dàq laa naafila yeneen waxtu yi dàq laa jàng alquran dàq laa tudd yàlla wallahi ëllëg yowmal qiyaam bu dekkee ci kanamu yàlla mu jiitu la yonent bi nee na di ngeen seen ay nit comme nii ngeen toogee fii ci suuf di seen biddéew yu kaw asamaan ay nit dinañ toll foofu di leen seen même boo duggee aljanna ñooñu taxaw naan waaw seen balcon yi la ñuy taxaw naan ñeeñal la ñee waaw ñii ah kon ndeke noonu la ñuy rawante waaye lan moo tax ñu rawante noonu waaye naafila yi la farata yi ñëpp ay tolloo bu nu waroo weeru koor ñun ñi wooroon woor yëpp ñaata jour la ñu am 29 wala 30 bu nu jullee waxtu yi suba ñun ñëpp ñu ànd ci jàkka ji julli ñoo tolloo wala bu nu jullee noo tisbaar ñoo tolloo takusaan timis gee yarhamukallah waaye mbokk yi li ma waxoon sànq rek bu koor gi jeexee yow pare nga ci li ma imaam bi doon wax amoon naa imaamu jàkka xam nga lu ma doon wax par exemple bu ñëwee bu ñëwee lundi nii wala wala jeudi wala ayaamul biir ñu woor nii ñu balaa ñuy nodd rek mu gis ñu mu ne xanaa da ngeen a woorati lan la wax de da ngeen a woorati waaw mu ne man du ma man du ma bëree lu dul mbapp man du ma bëree mbapat man man de du ma bëree mbapat combat bu ngand bi rek loolu mooy lan mooy ramadan rek lay xaar ramadan bu pare pare naa ci loolu la ñenn ñi di wax da nga ci dégg ñenn ñoo xam ne yàlla da leen rëbb dañ naan man bu ma bu ma bu ma dogee sax du ma fay luy fay man du ma foyanteeg yàlla am na ñuy wax loolu bu ñu amee boru weeru koor sax duñ fay soo leen ne fay leen ñu ne man du ma fayanteeg yàlla yàlla du sama morom dama koy naan dama koy fay julli jot julli wu ñu fayal julli gi ñu ne man du ma fay yàlla di la jéem a waar nag yàlla day moromu nit ñi ba ñuy leblanteeg moom ah di ko fay ah fekk xamuñu ne loolu dañuy lay rek xam nga layu ku daanu ci saret ndeysaan ndeysaan yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mu ne baat bi yàlla ne yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha wabtagu ilayhi alwasila nidaau lmuminina yàlla moo woo julli ñi yata dammanu xamsa umur baat bi woote bi juróomi mbir la ëmb yaa ayuha alladina amanu bi ñu yàlla wax eh yéen ñi gëm juróomi mbir la ëmb bi ci njëkk li tanbihihim ila ma yuraadu minhum yàlla leen woo pour yee leen ndax yàlla daf noo soxla moo tax mu woon mbokk yi yow mii woote ki ngay woo da nga koo soxla wala soxla woo ko ee yow diw dafa am loo bëgg da nga koo soxla moo tax nga woo ko wala soo nekkee ci biir néeg bi woo sa soxna da nga ko soxla wala soxla woo ko soo nekkee ci saal bi woo sa doom da nga ko soxla wala soxla woo ko boo nekkee fi ngay liggéeyee nga woo ñi nga jiite ne leen eh eh da nga leen soxla wala yàlla danoo woo kon daf noo soxla kon aaya bi li mu njëkk ëmb mooy yàlla nu soxla woonu pour lan dafa am lum nuy doyee ñaareel mu ne ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila amarahum bittaqwa digal nanu nu moytu ko nu ragal ko gis nga ñetteel amarahum bibtigai alwasila ila allah yàlla nee na ñu góorgóorlu ñu uti ñu sàkku ñu gëstu ji ñu wëri lépp loo xam ne day tax ñun ñii ñu jege ko lépp loo xam ne mbokk yi day tax nun ñi ñu am ngërëmal yàlla yàlla kontaan ci ñun day tax nun ñi ñu jege yàlla wallahi mbokk yi noonu lañ war nañ ko def tey kenn ci ñun bu sañoon ëllëg buy dugg aljanna danaan tël yàlla ne ko yow de da ngay dugg àjjana waaw seetal ñi ngay àndal da ngay gis waa ji ne tël papa kaay yaay daal di gees sa jabar yi yow yow ñëw leen daal di gees say doom ah ah daal di ñëw diw ana diw ana diw suñ gisul kenn sax ñu ne ana kooku nga ne yàlla des na kenn de des na sama caat bi ndax di nga bàyyi kenn pourtant bu la président invité woon ndogu tamit ne la na nga ñëw ndogu ànd la ku la neexa boo moytul nga buub sa waa kër yëpp yóbbaale wala ah surtout boo amee doom yu mag ak say soxna ah boo amee caat boo am 20 ans kon ñeneen ñi ñaataal lañ am président invité la ne la xoolal carte ouverte ah ànd la ku la neex kër gi da nga koy tëj bis boobu parce que président moo la woo waaw yàlla woo la subhanahu wa taala ne la góor góorlul nga def lépp loo xam ne day tax maag yow ñu juboo nga jege ma kon jar na def ba pare loolu wax yooyu yàlla wax la yàlla wax na nu wax yooyu jëf yooyu nan lay mel ba nu jege yàlla wallahi jege yàlla victoire la ku jege yàlla am nga ndam gu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy bu fekkee tey rek ci àdduna bu yu ñu nekk ku jege ku jege kilifa rek ku jege kilifa rek da ngay fuuy ku jege kilifa fii ci àdduna da ngay fuuy masama ku jege yàlla ëllëg ibtaxu ilayhi alwasila gis nga baat bi di wasila jar na conférence waaw wasila baat bii di baatu wasila war nañ ci def conférence maa ngi ni ci sama portable bii am na ñetti temu wasila aqwalul ulama fi l wasila borom xam-xam yi lan lañ ci wax am na waqafaat fiqihiya fi l wasila ay taxawaayu taxaw seetlu yoo xam ne borom xam-xamu fiq yi ñoo ko def ci wasila am na maahiyal wasila pour rek borom xam-xam yi di leeral baat bi di wasila waaye damaa xam téléchargé naa ko mu ngi fii mu ngi nii waaye du fi xej yàlla mu ne wa jaahidu xeex leen fi sabilillahi ci lépp luy kaweel sama kàddu ak sama diine gis nga baat yu mel nii tey mooy wa jaahidu fi sabilillah léegi kenn ñemetu ko wax waaw tey jii bu nu fekkee fii léegi manaan wa jaahidu na ngeen xeex fi sabilillahi buñ demee ñu ne am na benn kii waa ju nekk fee day wax xale yi nañ nekk ay terroriste waaw wa jaahidu takku leen taxaw temm jihaad fi sabilillahi ci sama yoon man yàlla waaw anfusakum bi xamliha ala taallumi wa taalimi mu ne na ngeen taxaw ci yenn seen bopp ci jàng xam jàngale ndeysaan allahu akbar tey julli ñi dem nañ ba ragal firi baatu jihaad baatu jihaad dañ koo ragal a firi tey bal sax léegi ñu ngi ci téere yi baatu jihaad dañ koy firee neneen yenn saa yi sax gars yi dañ laan la non non jihaad dem jël jaasi sax du jihaad bu wér da ngay dégg ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na dañoo jóge jóge nañ ci jihaad bu mag bi jóge nañ ci jihaad bu ndaw bi ñoo ngi jëm ci bu mag bi ñu ne yonent bi dafa jóge xeex ñii seen loxo yaa nga dagg ñii seen tànk yaa nga dagg ñii seen bët yaa nga tuuru ñii ña nga dagg ñu ngi toj seen bopp yi ñii ñu ngi leen jam ba gaa yi toog ñu ne yonent bi nee na leen ci jihaad bu ndaw lañ jóge de léegi nag ci jihaad bu mag bi lañ jëm qaalu ya rasulallah wa ma jihaadul akbar qaala jihaadun nafs loolu la ñuy naxee nit ñi de loolu la ñuy naxee nit ñi parce que dañuy ragal li ñuy wax ni jihaad am na sax benn année boo xam ne yéen ñi gudd fan nekk ay mag am na benn colloque congrès islamique bu amoon fii OCI bi ñu dajee ñu ngi daje woon fan foofu ñu def léegi foofu ñu def léegi méridien OCI la tuddoon foofu lañ daje ñu daal di ne jihaad nañ ko dindi ci islam baatu jihaad nañ ko dindi ci Sénégal gi lañ daje woon dindi ko ci alxuraan nañ ko dindi ci alxuraan baatu jihaad waaw baatu jihaad ci année boobu ma leen wax fàtte naa année bi nag 91 jërëjëf ñu ne na ngeen dindi baatu jihaad ci alquran léegi dindi wuñ ko mënuñu ko dindi waaye suñ nee wa jaahidu fi sabilillah neneen lañ la koy firile ci kanam au lieu ñu ne la na ngeen xeex lu jihaad mooy gàddu ay jaasi gàddu ay arme dem xeexi ji ak yi firi ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne bu ngeen bàyyee jihaad rek torox loolu moo dal jullit ñi ba ñu bàyyee jihaad lan torox waaw yonent bi nee na xaar ma daw wa jaahidu xeex leen fi sabilillah ci kawel kàddu yàlla laallakum ndax yéen tuflihuuna ngeen texe walal laallakum tuflihuuna ndax ngeen texe ndax ngeen texe kan ma bëgg a texe ak lan mooy texe mooy tanjuuna min an naar wa tadxuluuna aljanna loolu mooy texe yàlla nee na ñii baat yii ma wax su ngeen ko defee rek daal di texe mooy lan ragal leen yàlla jéem leen koo jege ut leen lu leen yóbbu ci moom ngeen xeex ci sama yoon wii ñetti mbir yi yàlla nee na bu ngeen ko defee rek je- texe kon jeex na ku bëgg a texe te texe mooy laa wax mucc ci safara dugg aljanna loolu mooy texe yàlla nee na ñetti mbir yi ko def texe laallakum tuflihun yàlla nee na inna allazina kafaru gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañu su ma su ma teeloon xam ne aaya bi kon doon nañ dagg tafsir bi kon doon nañ dagg tafsir bi sax mbokk yi yemale ko ci benn aaya bi mooy laallakum tuflihun waaw fii la ñuy yem sax nañ ko dagg incha allah mu nekk benn aaya bu mu jël suba incha allah ñu jël yeneen ñaari aaya yi mooy aaya 36 37 bismillah ndax aaya bi ñu jëm nii ëpp naa tënk rek tarafax taraxee ko daal di dem aaya alxuraan ëpp naa farax faraxee kon ñoo ngi jégglu ci ñetti aaya yi ñu waxoon ne moom la ñuy def yàlla daf ñu jël benn ñoo ngi jégglu loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jël juróomi question balaa waxtu wi jeex